xarit yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd beeg euh, seen chaîne télé bu jëkk ci wàllu caada di la 2STV di am mbégte lool nag ak bànneex ci dellu siwaat tey ci talaata ji fas yéene ànd ak yéen ci seen émission kër gi ni ñu koy defee saa su ne xanaa dellu santaat yàlla bu baax moom mi ñu may kàttan ba ñu ñëw teew julli salmal ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari wayjur bu wér wer wér gërëm suñu wasila waaye gërëm leen yéen nga xamante ni saa su ne yéen a ngi fësal seen cofeel jëmale ko ci ñun doore ko nag ci maladi di ci hôpitaux yi ak ñiy weyale seen i jàngoro ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw yàlla génne leen dara bañ leen dugale dugalati saa sunu xel sunu dem ci way dawlu yi ñu ñaanal leen yàlla atte leen ci yërmandeem jégal leen seen i bakkaar kilifa diine yëpp ñu nuyu leen ziar leen ñaanal leen yàlla yàggal leen fi ñu yàgg ñaanal réew mi yàgg ñaanal njaboot gi kilifa aada itam naka noonu ñu nuyu leen bu baax a baax ñoom itam ñaanal leen jàmm sutura xeewal waaye itam projet yi yàlla sottal ko li ñuy yaakaar ci ñoom yaakaar joojee bañ a tas waaye ànd ak lu mën a xew yàlla def jàmm ci seen biir ñoom ak uh, ku jigi yëpp ñu ngi leen koy ñaanal uh, di nuyu waa biir réew mi yëpp uh, di rafetlu ànd bi nga xamante ni ñu ngi koy ànd ak la 2STV rawatina seen émission kër gi di leen ñaanal ñoom tamit jàmm bu baax a baax a baax sutura xéewal góorgóorlu bi wala borom kër bi yàlla na mën ci kër gi dara yàlla defal ko jàmm defal ko mbokk yi nga xamante ni taamu nañu génn moo xam réewu Afrique la ñu nekk wala réewu nit ku weex nañu yëg ne rek ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar nga itam di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla sàmm leen yiir leen ba ñu dellu siwaat ci réew mi la leen yóbbu itam yàlla bu ci seen yaakaar tas waaye nag ànd ak lu mën a xew ku am na nga ñëw ku amul na nga ñëw ndax jéem tele bàyyi gàcce newu ca benn yoon euh, bu ngeen fàttalikoo rek euh, ndeysaan bi ñu fi mujj ci alxames ji euh, wala altine bee ñu génn di waxtaan ci wàllu kasu rajab ñu jëloon nag temu ñi nga xamante ni ñoom ñooy sàcc ñuy wax ne rek nit ñi dafa ñoo xamante ni leneen moo leen di yóbbu xam nga kuy gàmmu ak kuy dem ñoom ñëpp ñooy jaxasoo xàmmee leen day daal di doon loo xamante ni lu jafe la may wax ne nit ñi nañu fàggandiku ñay dem itam nañ yaraat seen bopp ba li nga xamante ni moo leen fa yóbbu ci bërëb bu tedd boobu di Touba ci jamonoy màggalu Kazu Rajab gi euh, na den loo xamante ni lu rafet lay doon euh, ma wax ne tam sàcc gi buñ ko ñaawa jëme rek euh, ñaaw njort gi ci góor ñi ponkal mu góor mi fi dugg naa ñaaw njort ci moom ndax amaana bu portable bi ma teg ki néeg bi dina ko jël ndax léegi jigéen ñi ñoo dàq sàcc nag góor ñi muy lu metti nag ci ñun lu metti loo xamante ni wax dëgg yàlla duñu ko rafetlu jigéen dem bay sàcc loolu doon loo xamante ni lu yéeme la waaye ndekete bi ma koy wax am na loo xamante ni mi ngi ñëw euh, ci jamonoy appel bi la xew ci càccum jigéen bu sàccoon matériel rek nag ñu mën a wax waaye la mu sàcc doy na waar comme olof Njaay dafa wax nag ne tungu ni du teew ñuy nataal damay àndandoo ak samay invité su ko defee ñoom dina leen expliquer li nga xamante ni moom la dund ci appelu Seydina Limaamul Mahdi Laay bi ñu ko doon amal 137e édition bi ni ki diggante alxames ak àjjuma foofee ca diwaanu Yoof ak Cambérène ak Ngor soxna si maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo mbokki téléspectateurs yi. soxna Mbaye maa ngi lay fay. Mm. maa ngi lay fay maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant. Mm-hmm. di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi. Mm. maa ngi leen nuyu yéen ñëpp bismillah jërëjëf. Euh, ñu yegg ànd itam ak euh, beneen gan boo xamante ni moom itamit mu ngi ci kër gi euh, soxna si yaakaar naa ni yow yaay soxna mbëgge kii mooy soxna mami soxna mami yow it ma bàyyi la nga nuyoog mbokki téléspectateurs yi. soxna Mbaye maa ngi lay nuyu. Mhm. di nuyu téléspectateur 2STV yëpp. di nuyu Sénégal yëpp. di jiital nuyoo bi ci axlu bay ci Seydina Limaamu Laay mhm. di nuyu di ñaan sëñ Ablaye yàlla ko fi yàlla yàggal lool te wér. ñu ngi nuyoo di ziyaar ñëpp. ndeysaan ñu ngi leen di nuyu yéen tamit di leen ziyaar di leen massawu coono yi ndax bu ñu nee coono dafa am loo xamante ni lu metti la ma wax leen ne doon nañu wax euh, lu jëm ci wàllu càccub jigéen ñi euh, dinañ ci ñëw ci détails yi nag li waral ñu ne jigéen la ànd koog mbokki téléspectateurs yi ci téléphone bi waaye nag danañ ñu bàyyi ba ñu am 20 minutes ñu mën a expliquer clairement li nga xamante ni ñoom ñii moom la ñuy dund li nga xamante ni moom moo leen dal. yaakaar naa ni soxna nga yaay nga mu am loo xamante ni dafa dal ki sa kaw mm-hmm. ma bëgg nga expliquer ko mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan mm-hmm. suñu mbokki téléspectateurs yi premier jour appel bi muy jeudi jeudi waa bi ñu wootee ci yoof waa nga mën nga yokk kàddu gi tuuti ok mm-hmm. bi ñu wootee ci appel bi nit yi dañuy xëy dem Cambérène su ngoonee ñu dem ngoor ci suba si nag damaa xëy ma yor sama doom bu góor. muy jeudi bi. jeudi bi. Mhm. ma yor sama doom bu góor ak sama ñees bi. Mhm. may ànd ak ñoom ñuy dox dem nañ ci boutique bi ma jëndal leen soow. Mhm. ñu ñëwaat dem ma jëndal leen tàngal. jëndal leen jus. maa ngi leen yor boobu ba léegi nag sama mag bi da doon togg ci kaw. après ma daal di koy ñëw. juste ci buntu kër bi rek ma gis benn mère. maire bi ne ma mm. soxna si nanga def ma ne ko mm. maa ngi fii mm. mu ne ma soxna si man de damaa réer ma ne ko ah, dangaa réer mu ne ma waa ndax damaa jël 66 bi ñi ma àndal ñëw ñoom dañoo teel a wàcc <laughs> man nag kon xaw ma fi ma dem ba terminus ma wàcc mm-hmm. léegi ma réer ma ne ko yow foo foo jëm ñan nga àndaloon mu ne ma man da Bambilor laa jugee mm-hmm. Bambilor laa jugee mm-hmm. ne Bambilor mhm. waaw mhm. ma taa di ne ko de da ngay dem fële ci sapeur yi ci côté jàkk ba mhm. boo fa laajee daluwaa Bambilor dinañ la yóbbu nga yegg foofu sa soriw fa ci côté jàkk bi la nekk mu ne ma garaawul ndax man fu mu nekk nii Pikine laa dëkkoon mais foofu dama faa tuxu bés xamuma fa sax ñu bëri c'est la première fois mu ñëw appel moom mère bi waaw moo yaa ngi sa doom ci buntu kër gi waa muy doom bu góor mu taadi ma man sax kon te xaw ma fekkee ne damaa tuxu bees hmm. bàyyi ma ma toog fii rek dama buggoon rek assister appel bi hmm. su guddee ma ñibbi su ma xëyaatee ci suba si ma taa di ñëwaat muy jour jeudi bi nga xamante ni ñu nga woote ca Cambérène mais ay benn benn gan ñu ngi doon ñëw ci kër yi ci Yoff waaw hmm. léegi nag mu taa di ne dafay toog foofu bu fa toogee ba guddi mu ñibbi bu xëyee mu ñëwaat mën ne ko waa ma xëcc chaise jox ko mu toog noonu ci buntu kër gi jàkkaaroo escalier yi jëm ci kaw dëgg la mi ngi ma naan kii sa doom la ku góor ki mën ko waa sama doom la kay mm-hmm. mu ne man moom dafa rafet sax moom sama chéri la dafa rafet de toppatoo ko de kii sama chéri la mm-hmm. ma daa di ree noonu bàyyi mu ne ko jigéen ki kii moom kii moom dafa xonk kii moom dereng la moom mm-hmm. kii moom bu ko toppatoo sama wujj la ma daa di ree ànd ak ñoom dem ndekete boobu boobu mi ngi xool sama doom bi may ànd xale te moom foo dajeeg moom ci buntu kër gi wala ci boutique ba ci buntu kër gi net suñu kër muy dugg d'accord léegi nga ànd ak moom dugg après ma xëccal ko chaise mu na ma fii baax na moom dalu waa Mbambilor bi nga xamante ni moom la jëmoon waaw bàyyi na ko daal di ànd ak yow dugg ci kër gi waaw nee na ma garaawul mhm. ma tegal ko chaise mu ne ma fii baax na ma ko chaise mu toog nga lebal ko teranga waa mhm. ñu toog ma ànd ak sama doom yi yéeg wàcc ma boot ki après ma jël sama doom bu ndaw bi dafa bëggoon nelaw ma daal di koy boot daal di teeku jigéen ki mhm. tout juste rek mère bi tamit daal di jug gis na ma ma dem ñëwaat dem ba dugg sama néegu yaay ñëwaat mu jug dem ni dafay julli dugg sama saal. Mm. suñu saal di julli. Mm-hmm. sama maam gis ko xàmmee ko ndax foofu suñu famille ñun rek a fa nekkoon. Mm-hmm. sama maam ma man sax mënu ma woon jouer mais il fallait a xam kii parce que xaw ma ko. Mm-hmm. dëkk bi dafa jaxasoo. sa maam toog yor téléphone am. ba bi julli ba pare daal di jug dem sa maam tëj buntu bi daal di woo sam papa jox caabi bi. mère bi dem toogaa place. doom bi moo nekk nii ci photo bi. parce que benn doom moom nga am. Mhm. keneen ki sa ñees la woon nga yor ko. parce que benn doom bi nga am. waa ñaata temps nga sëy soo ko am doom bi. trois ans. trois ans mhm. soo ko am faju fu nekk. Mhm. yeggaleel sa maam ak euh, gan gi ci biir néeg bi. léegi nag sama maam bi. daal di dem jox sama papa caabi bi. léegi tuuti gan yi commencé ñëw sama papa ubbi bunt bi. sama sœur bi sama ñaari sœur di naan sama biir néegu yaay ci kaw laal bi. sama bébé bi moo ngi naan fekk mère bi yëg na ci kaw di añ. sama benn encore génn jóge na ci salle bi ci suuf. waaw yéeg ci étage bi ci kaw. ci kaw d'accord waaw di añ. d'accord léegi nag ma taa di ñëw. Mhm. ma wàccee dama wàccee sama doom maa ngi ko tëraloon foofu. ci mhm. laal bi ak sama sœur yi. Mhm. añ bi pare sama yaay wooñu pour ñu ñëw séddale gan ñu añ. sama ñaari sœur yi sama doom bi. te booba mère bi rek a leen rax. waaw ci gan. ndax gan ñi ñëwaguñu. ñëwaguñu woon dañu demoon Cambérène. d'accord sama doom bi tëdd ci néeg di nelaw. di nelaw yeewu wàcc. ñëw ci saal ba gis sam papa papa sam papa jël ko indil ma ko ci kaw muy jooy mu ne ma bëggee Cheikh Ibra moo ngi jooy de sama beneen frère baaba ne ko indi ko daal di koy taf fii mm. berse ko te mère baa ngi toog ci biir néeg ci kaw berse ko berse ko mère bi sax sama mag moo ko servir mu añ mm-hmm. sama rakk bu góor bi ni mu koy verse nii sam papa jël bool plateau añ bi daal di wàcc sama doom bu góor ba baaba diñ koo yónni puisque mi ngi nelaw mu topp ci moom tamit wàcc léegi nag bu mu ci toppee waa wàcc xam naa mère bi da koo topp mhm. baaba daal dem tëral ko sama néegu yaay ci kaw laal bi dañ ko yónni dem Kër ma Massar mère mhm. bi daal di ñëw xam naa daal di jël sama doom bi da doon na nalaw sax mhm. xam naa boot ko rogandi ko dem maire boobu nag laa suspecté parce que moom rek moo raxoon ci kër ga effectivement te mère bi bi xale bi réeree mère bi dem na dem na est-ce que maire bi bi muy dem tàggu na leen tàggoowul ba pare en plus ma xool xool ne yëpp gisuma ko mm. man jaxasoo naa xaw ma woon ne sa xalaatuma meer bi mm. te mère bi li mu toog foofu sama benn umpaañ moo ngi doon bousculer doomam bi mm. bugg koo ñaf rek mère bi jug jàpp ci loxo bi di ko wiccax naan kan bul door xale bi bu door xale bi mel mère bi mel ni ku wérul bay xuloog moom di ko gaañ mu ne ko mère bàyyi ma yaa ngi may gaañ mu daal di àtte xale bi téye man bi may wër sama doom ba jaaxle ba ñëpp ñëw jigéen ñi kenn yor ko bu ñëpp jaaxle mm-hmm. ba ñu wootee ci sëriñ yi ñu ne ku jigéen ku am mandarga moo jël sama doom moo jël sa doom nga teg foofu sa loxo muy euh, Cheikh Ibra Thiane waaw maam xale bu toll ci 13 mois mhm. maam Cheikh Ibra xale bu toll ci 13 mois xam naa tur wi sax du ko jar ndax tur woo xamante ni boo ko woowee du ko xam mhm. euh, donc du ko jar mais li waral ñu indi photo bi pour képp koo xamante ni suspecté nga mel lu mel ni nga mën cee jaamu yàlla ngir yàlla ak yonent bi ndax xale bi xale bu mel nii kenn mënu koo yor ci koñ wala nga yor ko ci kër te doo xam exact euh, mu nekk gan ci kër gi te doo suspecté donc jaamikatu yàlla yaa ngi fi amoon nañ fi benn cas ku jigéen magum jëm ku ñu jëloon ku sëy ba yor ay doom ñu jël ko bi mu yeggee Casamance ñu def ci émission la am ku ñu woo ci émission bi en direct wax ñu ne kii jaar na sama kër Casamance te bu ngeen ñëwee dinaa leen teg ba fi ngeen nekk kooku am na yàlla joo xamante ni ba buuf tawal du ko fàtte te bu demee fa ñu jëm yàlla na yéex dina ko fa fekk muy soxna sos nga nekk Casamance yàlla na yàlla defalaat beneen soxna wala beneen waay boo xamante ni dafay jaamu yàlla xar ba tànkam ci lii ba xale bi feeñ ak fu fuñ ko mën a gisee soxna si yow lan nga ci mbëggee yaayam la maax yaayam ñoo bokk ndey yaa ak yaayam yéen a bokk ndey bi ngeen xamee ne xale bi réer na ngeen commencé di laajte xëy na soupçonné wul leen meen woon mère bi waaye gis ngeen ne mère bi kese moo fa nekkoon te bi xale bi demee moom dem na euh, mère bi itam tàgguwu tàggoowul benn yoon ngeen wëlbatiku nag commencé jëm ci ñi nga xamante ni ñooy maaman yi lan lañ leen wax. Euh, ndax tegtal du mën a ñàkk. bi ñu demee ci maaman yi. Mhm. même version lañu wax parce que li ñu dem ci maaman bari na. Mhm. mais ñëpp ku ñu dem def ñu wax jigéen moo ko jël. Mhm. jox ko couple. ci kaw jigéen moo ko jël jigéen bu am màndarga. te le jour même femme bi ñu dañ ko suspecté. parce que jour appel dafa nekkoon nit yu amer daa ñooñu. ndax ñëw na di laaj añ ñu jox leen añ. ñu bi ñu beree xale yi pour ñu añ. moom mu ne si xale yi lay añ man génnee naa ko ci sama salle dugal ko ci sama néeg bu njëkk bi mhm. pour mu añ fa ci mag ñi mu ne moom ci naa ko bàyyi ci xale yi mhm. jox ma kuddu ma dem sama jabaru sœur bi frère bi ne ko joxal ma kii kuddu gan gi le temps que kooku di jël kuddu yi parce que moo yoroon kuddu di ko ko jox mhm. wax na sama doomu sœur bi jox ma kuddu jox ma kuddu ba mm. xale bi énervé génn di ko wax yaayam nankaan yaay mère bi dafa soof mm-hmm. daal di wàcc moom dem si ñeneen ñi fa mm-hmm. génn si néeg boobu si xale dem feneen añ fa mm-hmm. ndax mère bi dafa soof sama euh, frère bi jabar bi bi mu ko joxee kuddu bi ba pare nee na nee na ma taw ma mi kii soof na de ma ne ko Aïcha ñii ay gan lañ nañ leen ganale rek Mm-hmm. mu ne ma maire bi neexuma te mais li ngeen di wax yëpp moom kese moo fa nekkoon ci gan moom kese moo ñu rax ci gan jour boobu gan ñi commencé gu ñu woon a ñëw yof non non non moom rek moo ñu rax ci gan mm-hmm. bi ñu ko joxee añ ba pare mm. la wàcc dem yoonam te bi ñuy joxe añ ñun avant ñun ñu ci waañ bi ñun ñuy añ maire mm-hmm. bi ñun laaj nañ ñu xale bi ñu foog ne mi ngi ci biir kër gi xale yi yor ko fekk na boobu maire bi dem na te maire bi chaise bi ñu ko tegaloon jugu fa maire bi dem na parce que dafa wàcc rek mu effacé wu mais ñun le jour ñun ñuy seet nit ñi mm-hmm. di ñu wax tegtal di ñu wax tegtal mm-hmm. mais xam nga nit yi doo dégg benn version ñaar rek nga gëm liñ la wax mais maire bi dafa am mandarga maire bi nan la mel maire bi dafa jam tuñ bi ci kaw tuñ mi ci suuf fii. fii daf ko jam. dafa ko jam tuñ dafa xees wala dafa ñuul. non maire mère bi gënuma xees tuuti rek la ma gënee xees. kon dafa ñuul. dafa ñuul mais dafa am teint clair rek. teint clair teint marron mm-hmm. daal. teint marron. daf dafa am daraja wala dafa tuuti wala. non du tout mère bi man maa ko ëpp jëmm dafa yam. dafa dafa tuuti ba pare gàtt. dafa ndaw gàtt mu ngi sol benn grand mbubb bu weex. Mm-hmm. comme genre voile u percale. Mm-hmm. kolu benn kol bi mu jiital mi ngi am multicolore ci biir mhm. mu tegaat ci beneen kol bu beneen kol bu weex mhm. comme si dafa préparer woon kuwam pour mhm. benn kol bi moom la war a bootee xale bi benn kal kol bi moom la war a muuroo en même temps mi ngi yor saagam saag ci loxom mais mi ngi am benn cicatrice ci kanam bi cicatrice ci ban côté ci kanam bi nii boo xoolee di nga gis cicatrice benn cicatrice yi mu def jamtuñ mu def jamtuñ mère bu tuuti te digg doomu ba pare jamtuñ d'accord Euh, ba tey ci wàllu tegtal yi dem ngeen ci koo xamante ni yàlla may na ko lool lool lool. Mhm. ba mu jot leen sax junj tur. boobu ban tur la. dëgg la wax nañu tur. Mhm. mais dafa am sama benn sœur boo xamante ne jëkkër bi colonel la. Mhm. mu ne bu ñu dugg ci débat boobu nañu bàyyi police doxal boppam mais wax nañu tur wax nañu sant. non te bii ci guddi rek sama beneen sœur bi. waaw demaat nañu waxaat ko tur laa même tur boobu. mais il faut il faut nga ñëw ci tur bi ñu leen wax ñi koy seetaan. te xam ni maire boobu ku tuuti la ku ñuul la am cicatrice ci ku tuuti la ku xaw teint marron mhm. am cicatrice ci kanam gi boole kook jamtuñ ba pare tudd même tour bi mënul doon coïncidence parce que lii c'est dangereux xale bi 13 mois la am yaayam ay weenam mi ngi nii parce que xale bi da doon nàmp donc il faut ngeen wax ñu tur bi c'est pas que euh, loi yoon la wala dara mais taqalu leen kenn mais dañ leen wax ne tur boobu la su ñu gisee ku méngoog moom dañ ñuy contacter vite fait. waaw tur bi mi ngi tudd nday Daba Laye Diouf. Ndeye Daba Laye Diouf. waaw moom la ñuy wax. est-ce que maire bi nga xamante ni moo doon wax ak yow wala maire bi nga xamante ni moom la yaay ji gisoon est-ce que maire boobu mën na doon séeréer wala mën na doon tukulóor wala lan lay doon. maire bi bi ma ko gisee. waaw man olof laa ko teg ou séeréer. waaw parce que en général ñun olof duñu jamtuñ séeréer mooy jamtuñ wala tukulóor. wala tukulóor mais séeréer la gën a nuru. séeréer la gën a niru. ndey Daba Laye Diouf. ba pare moom dafa collé ci kër gi. Mhm. mu ngi noonu euh, mun nañ ñu ubbil euh, téléphone yi parce que ci seen i gëstu euh, wax wax nañu leen ne maire bi nga xamante ni moom moo jël xale bi mi ngi tudd soxna Ndey Dabalaay Juuf képp koo xamante ne na xam nga maire boobu wala bu fekkee moom mi ngi ñuy seetaan te laalewu ci dara ndax dina feeñ ndax li waral dina feeñ mooy caméra de surveillance bari na ñaareel ba def ngeen ay laajte laajte ngeen ñi nekkoon ci buntu kër gi mhm. laajte ngeen ca yoonu marché ba ñu wax leen ne leen maire bi romb na fi moom moomu sol lu weex jamtuñ am cicatrice ci kanam gi boot benn xale xale bi mi ngi jooy ah, nan la demee ki ngeen jëkk laaj ci bunt bi benn xale avant tout ñuy laaj ci bunt bi mhm. euh, papu xale bi bi muy añ Omar am na benn invité bu dégg jooy mu ne ko Omar am na kuy jooy ci biir mu ne ko du fii ci mhm. kaw la ndax ki fi nekk mi ngi nelaw mhm. mais bi ñu demee côté nangaañ mhm. ñu laaj ay xale nee nañu mhm. am na benn mère bu yor benn xale avant ñu di leen wax li mu sol ñoom wax nañ mi ngi sol lacoste bu rouge noir pull bu rouge pull bu mi ngi ko sol bi ñu ko expliquer xale yi ñoom ñoo ñu wax ñu ne mère bi mi ngi boot xale bi ak benn col bi tegaa jël beneen col bi moom muuroo ko muur ko xale bi muur ko xale bi waaw pour bañ ñu xàmmee kanam parce que avant muy dem sax xale bi dafa doon jooy d'accord ñu teg foofu sunu loxo ñu dem euh, jël mbokk mi ci ligne bi alo muy lu doy waar. asalaamaaleykum ah, waaleykum asalaam. madame Diagne ngalam day bëgg jërëjëf jërëjëf jaañ Diagne yaay booy namm naa la. ndeysaan ñu ngi lay ziar baax lay maxtaar. di ziar ñu ngi lay delloo ziar. doon ba mu nuy yàlla bi mën a nit tey nit yàlla la ko niital mooy juróom yooyu ba delloo leen ko dëgg la yaa booy amin waay kàttanu yàlla baaxam amin amin jaañ yàlla ko yàlla feeñal delloo bay mooy juróom allahuma amin jaañ allahuma amin samay mbokk jërëjëf yaa démb maa ngi lay ñu ngi jégalu. démb démb fête de fête du la woon. Euh, donc révision lañ leen tegaloon. ah waaw man nag mm-hmm, ñu ngi jégalu bu baax yaa booy. yàlla baax yaa booy sa ñaan am na solo yàlla na ko yàlla nangu. jërëjëf yaay jërëjëf jërëjëf yaay booy. merci beaucoup ñu di ko nuyu bu baax suñu yaay ajaratu Caba Diagne yàq yaay Baba boroom borom garaaf euh, di ko gërëm bu baax ci ñaan yi di wax ne def leen ni moom rek képp koo xamante ni euh, am nga suspect ci xale boo xamante ni dañ ko fa indi toll ci 13 mois daloon na fi bébé Mouhamed waaye yàlla nit na ko euh, ci kattanam ak mën-mën yàlla na yàlla nitaat xale bi ndax 13 mois la am tolluwul ci dox tolluwul ci dara ci kaw lalu yaayam lañ ko fekk jël ko. tur wa ñu leen wax nag ajaratun euh, soxna Ndeye Dabalaay Diouf Ndeye Dabalaay juuf nag euh, euh, wala soxna su nga xamante ni moo duggoon ci kër gi te ñu am suspect ci moom mooy kanam gi dafa am benn cicatrice mu jamutuñ nekk nit ku tuuti nii te am teint clair teint marron soloon lu weex ci appel bi col gu multicolore ak col bu weex boot na fa doomi jàmburam nag ndax nit ñi gis nañ ko ci mbedd mi daje ak moom mu boot xale bi xale baa ngi jooy mu muur ko benn sër dem ak doomi jàmbur muy lu metti nag muy benn doom ci yaayam euh, di wuyoo laay xëy na peut-être yàlla rek a xam ndax duñu bàkkaar waaye nag diwu wuyoo laay ba pare di def loolu ah maa ngi koy soog a dégg loolu day borom woote bu mag ba wootewul woon pour loolu waaye nag euh, mu ngi ci teg bëtam moom borom woote boobu waaye ki nga xamante ni mooy maam Cheikh Ibrahima Fall liggéey ba mu réy ba mu liggéeyal woon Serigne Touba yàlla na ci yàlla jël benn rek niite ko turandoom bi nga xamante ni moom la ñuy seet buntu baa noonu ngeen mën ci jaar biñ ko jëlee léegi lan ngay dund. Hmm? biñ ko jëlee léegi lan ngay dund. damaa stressé wu. parce que nekkoo ba léegi. mënuma lekk yow yow élève nga da ngay jàng. waaw. ajjuma incha allah nga war a def examen. Hmm. muy déjà une semaine yoo xamante ni sa doom day réer. Hmm. dafa réer. yàlla mën na ko nag balaa ajjuma yàlla nañu ko yàlla defal. yàlla nit ko euh, Cheikh Ibra Thiane boobu. Euh, ci jàmm ak salaam ndax yaayam mën a def examen fan ngay jànge man IFEC laa nekk. IFEC waaw IFEC mooy fan. côté zone de captage ci côté SDE bi. d'accord nga war a def eh, examen vendredi. waaw gestion financière laa war a def. gestion financière. waa mais kenn say mbokk sax wax nañ ne mënuñu la xàmmee ndax li ngay dund ndax dafa metti mhm. naka nga ko dundee. metti na trop. Mhm. moom ana papaam. papa mi ngi ciy wëri moom tamit. moom it mi ngi ci ba jaar beneen yoon. waaw waaw yal na yàlla dimbali leen mbokk allo allo. allo. asalaamaaleykum. soxna si ñu ngi lay ziar. Adja ma jëm si am Dieng. jërëjëf jërëjëf. Ramatoulaye Diop Yoff. Diop juba ñu ngi lay nuyu di la ziar. bu nekk waaye émission bi moom jàpp sama xol nag jàppoon. dëgg la dëgg la Diop mu metti lool. metti lool nag. lee mm. tax jamono ji toll dafa na xari kenn dimbaleetul kenn te ñoo yey. léegi. Mm-hmm. waaw léegi ku la fekk ñaan la wala nga yalwaan la nga nag an wala nga jànni ko nit ñi da ngaa bon. dëgg la fekk bonoo. wallaay fekk bonoo. Mm-hmm. xam nga dina moom métti na su ci jaboot mm. waaye nag kii li ko dal yàlla na ko yàlla nit allahumma amin Diop yàlla na ko yàlla nit allahumma amin ay la yàlla dégg waaye yàlla na ko yàlla nit Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan bi yàlla na ko yàlla ñuy bi xam ne moom jàmm tey jàmm yàlla na ko ci yàlla dañ ngi tasu Seydina ndeysaan ndeysaan metti lool lool mm, mm, lool mm. kenn saraxatul kenn mayeetul kenn defatul <laughs> déedéet ndax lii déedéet kenn defatu ko de billaahi jërëjëf Diop ñu ñaa ngi ragal ñu ñaa ngi tiit ndax ah, jaboot yaa de quoi jaboot rek moom mën na ci moromam jabootam yàlla nag yàlla mi tax a def ay waay ñaan leen waaye ku ami dog ku am na ko def jërëjëf amin amin Diop ndeysaan amin Diop ndeysaan amin amin Seydal sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Rama ndeysaan amin Diop ndeysaan ñu koy jaajëfal bu baax a baax Adja Ramatulaay Diop depuis Yoff di nuyu waay Yoff gépp nag diggante Mbengeen Tongoor Ndëngaañ Ndënaat euh, waa APEX yi ñëpp daal maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di wax ne nag nañu vigilant ndax réew mi dafa nekk réew moo xamante ni ni ñuy rax duñu ko xam te nag teraanga lañ ciy jubutlu teraanga senegal léegi dañ koy xoolaat ndax bu fekkente ni yalwaankat dafa ñëw euh, ci sa kër. bu bëggee sori rek danga nga koy dàq amaana yalwaankat la waaye am na benn yalwaankat xëy na peut-être bu ma sa def njombe càccum portable càccum xaalis càccum yére ba tax da ngay daal di tiit teg say bunt man mii dal na ma jour appel bi benn xale bu góor bu ñëw sama chambre à coucher mu rideau bi naa ma promotion xaw ma lan solo tiset ma ne ko wàccee sama rideau te nga génn ci biti parce que yu mel nii moom moo tax mm-hmm. ñu jël mbokk moom ci ligne bi allo allo salaamaaleykum aleykum salaam soxna Mbaye ñu ngi ziyaar bu baax soxna si ñu ngi bi naka la fooy wootee. Ami Seck. Seck rapidement sa participation kii rek. Mm. yàlla mm. niital ko boromam bi. amin amin amin amin Seck. yàlla na ko yàlla bi. na ko yàlla yàlla na ko yàlla amin yàlla mën na ko de. tey ko leneen lu toog tam. ndeysaan amin waay amin koy ñaanal bu baax. amin amin Seck. jërëjëf jërëjëf. yaakaar naa ni itam sunu mbokk yi nga xamante ni ay ñaankat lañu am na ci ñoo xamante ni yàlla may na leen euh, ci kuréer loolu moo waral ñu dem fekki ji seeti ji koo xamante ni ñoom ci seen wàllu bopp ñoo ko seeti tegtal yi yépp di benn jigéen a ko jël maire la ni la mel euh, mu doon tegtalu maire bi nga xamante ni euh, bi ñu noppee gis xale bi lañ ko noppee gis te nag bi biñ ko jëlee fat ko ci biir kër gi daf leen wax ne leen waa Mbambilor fa laa jëm damay laajte euh, mu di ko expliquer dalu mbambi Mbambilor bi mu ne ko miinuma lool sax ma Mbambilor ndax man Pikine laa jógee waaye bàyyil ma toog fii benn yoon ndax kii sa doom la ndax benn bi rek nga am kañ nga ko am laajte laajte laajte ba mu leer mu doon lu metti noonu la la ko laajee. te tàmbayam pour mère bi jëlee l'ai bien accueilli. dëgg la dalal naa ko bu baax jox naa ko mu toog lekk na ba suur. naan na lépp lekk fruit ba pare yóbbaale sama doom pourtant amoon na ay doom yu bëri yu fa nekkoon te man benn doom boobu keese moom laa am te chaque jour que jafee dama koy xalaat mu nekk sama xol bi chaque guddi mënu maa law ma di ko xalaat rek mère bi na ma indil sama doom bu bi na ma indil sama doom jaaxle naa na ma indil sama doom ngir yàlla ak yonente bi sama doom il était vraiment chuchoté il était choyé na ma ko indil na ma indil sama doom bi dama am examen vendredi te su ñëwul du ma mën a réviser démb sa essayé naa ubbi sama kay yi mais su ma xoolee sama kay bi rek sama doom laay gis ay yérem yëpp muy ma teg ma koy xool rek na ma indil sama doom ngir yàlla ak jëmmi Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wassalaam ci wormay Seyna Mbanjoon maam Babacar ci barke Baye Ndiène Thiaw Laye barke xalifa général yi kilifa diine yi kilifa aada yi maa ngi leen di ñaan ngeen dimbali ma sama doom rek laa bëgg ñu delloo ma ko sama doom kese laa bëgg ñu delloo ma ko foofu doy na muy lu yéeme mbokk alo alo oui alo salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw lépp lu ñu wax dama bëgg waaw ma bind ko. waaw comme ça boo paree nañ ma bind nañ ma bindal allo. oh euh, euh, mbokk ja sama numéro 77 534 91 85 buñ ma woo en direct nag ngir yàlla 77 534 91 85 su ko defee boo paree nga woo ma ci. ma mën a bind pour euh, jël ko largement jox ko ay mbokkam ndax samay dëkkandoo lañu wax dëgg yàlla muy lu doy waar li ngeen dégg léegi mu wax ko euh, jooyloo na ku nekk fan lañ toll woon man ak yow am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko allo allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. Euh, xanaa affaire bi moo ngi touché rek. Mhm. c'est la première fois may woote. Mhm, mhm. dama jooy ci situation bi ba xamatuma lu may wax. Mm, mm, mm. xale bu jigéen bi nekk sama moroom man sax amaguma doom. waaye nag sentir na yaay ni mu attaché woo ci doomam. surtout doom boo xam ne feragul ni muy def ci yow. nga bàyyi yal na ko yàlla nit. nga bàyyi ko ay weenam. yal na ko yàlla nit. maa ngi wootee ba Bambey. ak a nekk. ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom mi nga xam ne dara tëwu ko. billahi moo man lépp def lépp. billahi xam delloo xale bi. billahi ay yaayam. billahi. xaw moo tooy moo tax liñ liñ la dëgër leen rek xam ngeen ma man moom <laughs> damaa yàmbare waaye dëgër leen rek muy metti lool muy lu doy lool toll ci examen euh, di def euh, gestion lan. financière financière war a def examen vendredi ñu ñëw jël sa doom ni ko coppet même boo deful examen waaye doom muy benn doom ngay tëdd ak moom teg ay yéreem say wen duy la euh, waaja doon wax jam leru leru kaay nàmp gisoo ko ko namp euh, muy lu doy waar euh, nit nekk na chéri nit nekk na de nekk na lool ndax su xooloon situation bi mu ñu teg fi mu nekk nii mm. ñun appel mënuñu sax accueillir suñuy gan talu leen gan kenn lekkul kenn naanul mm. xale bi toog na lu yàgg di soog a am doom mm. fu ne mu jaar fa lu ne mu def ko jëkkëram toogul guddi toogul bëccëg mm. même pas sax su bëggoon doom mënoon na dem ci village SOS yi ut fa doom mm-hmm. mais moo gën wala mu ñëw ci man foofu billahi bu ñëwoon ci man ma may ko doom xale yi ma bootu sama ginnaaw mm-hmm. euh, te bëgg dafa doy daal man daal xamatuma lu may wax xale yaa ngi ëmb di ñëw ci man bugguma doom ji dama koy sànni boo si indil ma tegal ma fi am na ko bëgg doom mu yoral la mhm. ngir yàlla bu bu ñëwoon ci man ma may ko mhm. wallahi azim bu ñëwoon ci man ma may ko mhm. mbokk allo allo allo soxna Mbaye waaw sama sëriñ maa ngi lay ziar bu baax waaw ñu ngi lay fay di Euh, lii di tax na képp koo xam yaa ngi ñaanate ndimbal. Mm. Euh, des na la bàyyi xel. Mm-hmm. waaye may wax rek ñi doomu adama yi nga xam ne si ñoo daan dimbalee. Mm. bu leen lii découragé. Mm-hmm. waaye nag na leen jox yoon wu ñu war a dimbalee na leen wan naka la ngeen di dimbalee pour pour war a dimbalee. Mm-hmm. ndax nit man nit ñëw na sama kër fekk ma mu ne ma dama bëgg añ. waaw. dama daal di ko toogal ci buntu kër gi. Mhm. dugg ci biir nga xam ne ko ci bool jox ko bool bu set. Mm, mm. jox ko mu jox ko mu añ jox ko ndox mu naan ma ne leen bàyyi leen ko xel tey buntu kër gi mu lekk ba pare joxe ndab li dem. dëgg la. loolu jotewul dara ak ñi yalwaan wala ñi ñaan di mal ndax. nga yoroon di ñaan dimbal loolu mooy mooy seen xëy na li ñu mën a dimbali ko waaye. saay saay hmm. wala ka bon digg euh, raaxalu ci loolu. waaw. mu tax loolu ñu yàq ko. dëgg la. moom nag maa ngi koy ñaanal. Hmm. di ko xamal ne rek euh, lii ko dal daal dama man mi ngi dox ak yéen. Hmm. taxawal sama doom bu jigéen boobu ñetti at. waaye alhamdulilah xam bi ko léegi dafa mujjoon gaañu. feeñ na. ñu sànni ko ci booru géej. ñu sànni ko booru géej. moom nag euh, waaw moom la ko lii daal la yàlla xoloon na yàlla def doomam feeñ. amin amin loolu ba tey mu ngi jàpp sama mu ngi ma jàpp jàpp yaayam ba tey. bi bi mu amee bi mu amee ñetti lañ ko yóbbu ba mu am juróom-ñaari at. déedéet déedéet dañ ko yóbbu moom bi mu amee ñetti at lañ. Mm-hmm. Uh, boobu ñetti at lay toll ñu yóbbu ko ñetti at mën nañu ko tural mu nekk bu booru géej ñu doon ko. mais dara jotu ko. Uh, loolu. non dafa ko fekk mu dee. dañ loolu lañ koy ñaan yàlla bu ko dal moom yàlla du moom tey. amin amin amin waaye xam naa ni ko daal métti di ko daal xam naa ko mm-hmm. man maa ngi fi nekk nii xamatuma sax ku nekk ndax fàttali ma loolu bare bare bare. dëgg la dafa yeewaat góom bi doon nelaw. daf ko yee. masa daf ko yee yëpp yee. masa xam naa fi xam naa fi yàlla ko yàlla niital li mu li mu réerle. masa masa amiin ko yàlla niital doomam. amiin amiin amiin. jërëjëf ñuy ñaan ñi ñuy woote ñi ñaan ñi la waaye maa ñaan ñiy woote ñu xaw a gàttal ndax <coughs> ñàkk ñu am ñu am ay xibaar wala ñu si am dara bëgg a woote duñ mën a dugg. voilà c'est ça jërëjëf pour ñaan rek da nga jërëjëf merci beaucoup ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax mbokk moomu di ko nuyu di ko ziyaar di ko massawu euh, di massawu soxnaam moom tamit li nga xamante ni yeewaat nañ ko ci ñoom ndax loolu dara gënu koo metti duñ ci dellu siwaat nag waaye ñëpp dégg nañu ko te yàlla tere yàlla bu mu dal euh, sunu bébé bi euh, maam Cheikh Ibra Thiane bàyyi ko yoof 13 mois ci lay toll xale baa ngi noonu nit ñi gis nañ ko bu baax a baax képp koo xamante ni suspecté nga ci rek mën nga ñu woo euh, ci 77 534 91 85 77 534 91 85 may ñaan rek mbokk yi nga xamante ni ñooy bëgg a woote tey jàllale message wala dama ko bëgg a ñaanal wala dama soxla ñaan ndimbal ndimbal moom dinaa ci ñëw amatul parce que télé bi joxuñu ma budget ndax dëgg yàlla li ñuy demandé ci cas social mënul nekk thème tous les jours donc. Euh, du ñu koy mën a jël waaye daal képp koo xamante ni am nga ci information même boo ñu jotalee sax bindal ñu message wala nga wàcceel ñu message ñun dinañ la rappeler à notre tour mbokk allo. allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si ñu lay ziar. la soxna Yaadi waaye Yaadi laay maxtaar ku baax. ñu ngi lay ziar bu baax. Alassane ak Seyni maa ngi lay nuyu bu baax di kontaan ci yow sa taxawaay ci yow rafet na. jërëjëf jërëjëf Thiam. jërëjëf Laye Makhtar. yooyu eh, sa taxawaay ci rafet na lool. jërëjëf loolu moo ñu war. ndax jëmm yooyu toog. Mm-hmm. samay rakk lañu. ndeysaan. ma bokk ak ñoom benn kër suñu kër ñoo dende. ndeysaan. kon nattu biir seen taw sama kaw la daal. dëgg la dëgg la wallaay Laye Makhtar. nañ ñaan képp koo xamante ne nga di jullit rek. Mm. nga di soppe. Mm. képp koo xam ne. Sidna Ndiaye soppe. lay ñaan yàlla nañu jiitu sunu doom jooju. allahumma amin. parce que kooku yaay yaay xale bi jur xale bi maa yaay ñu doon ñooy ànd. ndeysaan. kon kii xale la xale yii ñoo ko ngénte maa ngi nii ko ngénte. ndeysaan yaa di ko ngénte xale la. mbëgg mi ñoo ko ngénte kon xam nga ne kii xale la. ndeysaan wallaay xale la xamee ma ko woon noonu. doom jooju nag. ñu mm. ci ëtt waaw. alayhi salaam yàlla na ko yàlla. ndeysaan amin amuñu ku dul Seydina Limaamul Mahdi xale bi maam yi Mamadou Lamine laay sama waay waaye nga xamante moom la baayam yaakaar waaw muy Cheikh Ibrahima Fall waaw tudde ko doomam jon ndeysaan ko suñu borom amin lay sant lu baax la ndokkeel ci appel bi jërëjëf laay di wax El Hadj Ndiaye di kee bu rafet nga def ci appel bi ndeysaan ñu ngi ciy ndokkeel El Hadj yëpp. dëgg la dëgg la Laye Makhtar. ñu la bu baax a baax. ndeysaan amin amin lay ziar bu maa ngi koy nuyu bu baax kor Ablaye Diouf Sarr. jërëjëf jigéen ju baax jooju ci yox waaye tey da daw nag. dama dama dañ ma may ah alhamdulilah noonu la ah, ak appel bi noonu la lay maxtaar. waaw bëgg sama doom ji maa ngi koy masaw bu baax. ndeysaan ndeysaan. waaw kay maa ngi beaucoup ñu koy jaajëfal soxna yaa di bu télévision Lamp Fall borom ëtt bi dugg noonu ci émission bi di sama dëkkandoo bu baax buy jokkale lu baax buy dox lu baax ci biir Yoff te nag doo dajeeg moom mukk muy taxawaalu donc yaa di maa ngi koy gërëm di ko sant waaye di gërëm xaritam soppeem ma euh, kilifaam sëriñam léppam di sunu sëriñ di sunu xarit itam euh, Thiawlaay yaa fàtti Thiawlaay euh, kor Abdoulaye Diouf Sarr sunu maire boobu ñu ngi koy nuyu bu baax moom tamit Thiawlaay seetaanul kenn ci appel bi jaajëf Laay Maxtaar mbokkalo bismillah asalaamaaleykum waaleykum sama sëriñ ñu ngi lay ziyaar waaw ñu ngi ngi jégalu bu baax. oh ñu ngi jégalu bu baax ñu ngi xaarandiwaat mbokk yi tey émission bi ñoom ñoo ko moom ndax wax dëgg yàlla euh, tegteel yaa ngi fi ñaan yaa ngi fi yu baax yaa ngi fi seen waa kër nag tooguñu jeexal nañu tàkk te li ma jaaxal mooy lu jafe ci émission euh, sunu émission bu ñu ko defee ñu bari dañ ñuy woo defal nangam te yàlla tax du ñu laaj dara mais des fois nga réer la itam. réer le nit ak i noppam dangay ngay jeexal tàkk say mbokk jeexal takk tegtal yi day bari lool waaye fi ñu leen tegtal ne fa la nekk. tata mbayam may ma tuuti. jëlal sama doom boobu yàlla moo ma ko mayoon. Mm. yàlla moo ma ko mayoon. Mm. mu jëlaat ko bu ko neexee waatee rek dina ko indiwaat samay loxo. ndax lan ma jël mbokk mi ci ligne bi. d'accord nekkatul. franchement nekkatul ki ma teg ci plateau bi mais il fallait mu toog wax pour nit ñi xam li muy dund ak li ko yóbbee lii lan la mbokk yi allo. allo yaa booy. doom booy. na nga maa ngi lay ñaan rek nay gàtt maa ngi sant yàlla. dëgg la dëgg la li ma wax ma mot rek ma ne naa la dëgg la yaa li muy dund lu métti la. torop. man benn instant sax yore naa doom xale boo xam ne parental la. Mm. amagul sax deux ans. Mm. réer na ma ci diir bu gàtt. Mm. dund naa ci loo xamante ni. te dafa toppoon magam magam la toppoon magam yëgu ko. wallaahi. magam la toppoon tax mag ji yëgu ko. waaw. mu réer ñu diir bu gàtt mais yëg naa ci loo xam ne dafa mel ni àdduna doon màbb sama kaw. <laughs> cey sama bis ba sama du benn doom du sama ñaareelu doom. jërëjëf. kii lu muy dund mère bi lu mu ko teg lu métti la. lu mu ko teg lu métti la waaye. Euh, lu métti la bi bu dee mi ñuy dégg nag jël doomu jàmbur mu yóbbu. delloo ko dafa metti kii li mu nekkee metti naa. doom. Mm. xol. rawatina nag benn doom ci ndeyam. jërëjëf nga sonn ci lool soo ko am. fu mu mën na ne nag gàddu doomu jàmbur mu yóbbu li àq la. tey suñu boroomu aay. maa am na solo am na solo. musuma na jërëjëf lebal la teraanga nga fay leneen euh, doy na waar man euh, dal na ma kooru daaw ku ne dégg na ma kii 2STV ma woote en direct naan sama doom sàcc nañ ko fekk benn xale bu ma fat ci sama kër. mu të ay mbokkam ma ne maamam indi comme nee na ci man lay nekk ma def ci ñu def ci ay ñaan pour xale bi toog xale bi dem yóbbaale sama doom keroog damay yuuxu di mbëkk sama oto bi di wàccaat parce que dafa metti ak doom nu mu mënti doon bu namee tëdd boo namee tëdd te fanaanul ci yow te xamoo fu mu condition yi mu nekk day metti waaye ka koy teg nit na xoolaat boppam bu baax a baax yàlla day ñëw de ma mayaat tuuti cinq nga tëtaa mbayam doom booy sama doom boobu mhm. xam naa ne moo ngi ci jàmm de. Mm. waaye man yaayam. Mm. nekkuma ci jàmm. dëgg la ndax ñun suñu école. Mm. dañuy jàng développement personnel. suñu prof téye nañu développement personnel. di ñu expliquer. ne nit situation boo mënti nekk. danga koy accepter. yàlla moo la ko teg te dala koy teggi. te suñu prof newoon na. fête des femmes demoon nañu prison. yóbbu ay don. mais nee na am na jigéen yoo xamante ne. génn ñu sax prison bi mhm. génn ñu sax prison dañuy jooy rek mu ne jooy fajul dara mhm. mais nee am na koo xamante ne mhm. dafa génnoon di fecc di ree ñoo ne ba ci moom ne ko voilé ma mu voilé ko mu fecc mu ree après mu jeex suñu prof développement personnel nee na nit quoi qu'il en soit da ngay accepter situation bi nu mu nekkee suñu école lañ ko jàngee bien que c'est dur oui un instant ma jël kii ci ligne bi allo allo allo. oui soxna si ñu lay ziar. allo. oui. Samba. Euh, waaw maman Gagne Siri Ndao Thianako waaw maman Gagne Siri ñu lay ziar. Euh, yal na yàlla nangu yaay mbayam. ay ca maman yow rek la ñuy déglu rapidement. maa ngi ñaanal xale bi. ndeysaan. ni Cheikh Ibrahima Fall nit woon Serigne Touba. wallaahi yal na ko yàlla nital doomam. amiin amiin. barke Mouhamed xale bi dina gis doomam si jàmm salaam. ndeysaan billaahi wallaahi talaahi xale bii mooy jot doomam si jàmm ak salaam yàlla na leen indi nouvelle boobu suba dafa tooy bu leen jooy kon damay jooy. moom dëgër damay man dëgër moom doomam ji. amin amin amin xale bii billaahi wallaahi taalaahi bu dee moo jur doomam ji ëmb ko juróom-ñeenti weer. fukkeel ba xaw koo gaañ. fukkeel ba xaw koo gaañ. yàlla mhm. dina ko delloo doomam. allahumma amin merci beaucoup. xale bu ndaw yàlla na ko yàlla jox doomam. allahumma amin jërëjëf laay maxtaar sàmm boppam téye boppam ba yàlla indi boroom kër mu dugg si ci fartas yàlla ak sunnas Muhammad yàlla dénk ko doom muy faju di faju ba yàlla indi benn doom boobu doom boobu am un an un mois jigéen ñëw ne ko doññet ne ko wàkk boot loolu moo ma jaaxal dafa amul doom ndax wala lu tax mu jël doomi jàmbur yow bu fekkente ni amoo doom ba jël doomi jàmbur ne ko wàkk boot war ngaa yëg la ndeyam di daj ndax mat wa day dekkiwaat mbokkaalo c'est dur allo. alo waaw. sama sëriñ maa ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay ziar bu baax a baax. alhamdulilah yow rek la ñuy déglu. waaw. Hmm. soxna Sow jëlee ko sax lépp na lool. Hmm. waaye dañoo bëgg état bi. Hmm. pour mu jël ci ay trois personnes ay parce que ay jamono. kan moo ci jël ay responsabilités am. état bi ci boppam moo war a jël responsabilité état bi Ndoye Bane wax na ko ci suba de lii réer kenn xamatul nu mu toll. lii dafa métti parce que nga gis sa doom nii ñu jël la lëkkul nii nii. donc dafa métti dara lii dafa doon état bi ci par rapport ak ci seen amul sax day waaw Cheikh jërëjëf merci beaucoup waaw ñëpp lii réer bari na jéggi na dayoo xale yaa ngi dem fukki at xale yaa ngi dem juróomi at xale yaa ngi dem nangam euh, yàlla bu bu mu ko dal te gëm naa ni du ko dal. sama doom laa bëgg mu ñëwaat fii samay loxo. sama doom laa buggaat mu ñëwaat fii samay loxo. Mm-hmm. dina ñëwaat ci say loxo. sama doom bu guddee moom day guddee nelaw dañuy ànd ma jàpp ci loxoom ñuy jox territoire jàmmalaay bi ba ci sëy naa ma joon ba. ah mi ngi dox. dañuy jàpp dox bi dëgërul sax ñu jàppee ñu dox ba ci Seydi Ñaam ma joon wetu kër Chérif bu ñu eñee ko sax day bañ day bañ di bañ ma forcé ko ñu ñëwaat. guddi ñu wër wër jàmmalaay bi jour chaque fois dañuy wër jàmmalaay bi ñu door a dimbali kooku ci ligne bi allo. allo oui. Adja waaw. man de maa ngi gënu xale boobu man la Rama Diallo Gibraltar. Rama Diallo Gibraltar yow rek la ñuy déglu Adja Rama. kooku mag baay ak bokk ndey ak baay. Hmm. kooku Samba Sala la. Hmm. kooku mooy surtout Ndeye Maram Fall Farma. xëy na baa leen ba bi sama bi sama yaay dee ba léegi wax yaay sama yaay yow Rama. ndeysaan. ma dégg jël sa doom bi ma koy indi ba la ak may rey. ndeysaan. beneen sa sët bi dara du la dal. léegi laa waxal Pape Ndeye nga nee na dee ñu indi sa bi. ay yaa ngi ko àllu. àllu bi sax si terme ba du nekk tur. arrêté leen ko bàjjen bul jooy nañ ko arrêté parce que du ma supporter loolu ma jox la kàddu gi hmm. bàjjen baal ñu mais hmm. dafa doy waar dafa metti dañuy dañuy téye sax pour wax nii bàjjen dafa doy waar mi la hmm. dafa metti torop euh, ñun jox nañu tegtal parce que man gaaw ma gëm gis nga kii nii ma la wax nii sama benn suñu benn doom moo fa woo xaritam mu oote. Mm. parce que intermédiaire rek lañ amoon lu jour. Mm. bi mu waxee man gëw ma. bi mu leen ne euh, euh, faat naka. nday dabalaay nday dabalaay moom sax ndey la ñu waxoon daba mais xamuñu lu ci topp. waaw. jëlal kii ci ligne bi ba pare. merci ñu jël kooku allo allo. maman sant yàlla bu baax alhamdulilah tur bi naka la. maa ngi tudd Mouhamed. maa ngi woote zone d'aptage. d'accord Mouhamed yow rek la ñuy déglu. waaw ndey ci euh, des daf ma animé bi ma gisee femme bi hmm. euh, di di seet doomam hmm. waaye nag euh, hmm. parce que kii m'a elle elle besoin. Mm. voilà euh, assistance psychologique elle en a besoin certes. Mm-hmm. Euh, yóbbu nañu ko hôpital mi ngi dem hôpital di ñëw ñu ngi koy defal ay calmants ak yooyu xam nañ ne stress bi ak naqar bi mi ngi monter ci moom franchement seeni waa kër li ci war yëpp ñu ngi koy def macha allah yal na yàlla jàppale leen. Euh, euh, Euh, ndey nan la la wax. ndey daba la wax. bi mu waxee ma ne leen loolu amul. Mm-hmm. du ñu gëm benn wax. Mm. fekk sama sœur bi fi muy sëy dafa am ku fay seet muy wax tur moom tamit. Mm-hmm. bi mu waxee tur ma ne ba tey bu ñu wax. ba tey moom même tur bi la wax. même tur. Mm. ma ne bu ñu wax parce que accuser nit. ci kaw lu ñu leerul même mandarga mu méngoo ak yu maire bi nga xamante ni moo fa ñëwoon làkkat la wax waaw dañu kii làkkat la waaw xamal nañu ne doom ji ku ko jël sax daf ko jël joxe ko daf ko joxe waaw soo leen gisoon ndaw si sax xamul fi doom ji ne daf ko jël joxe ko mais e, e, elle de sérieux problèmes parce que wàkk boot doomi jàmbur moom doo ci génnee noonu ñu ñu jël kii ci ligne bi allo allo voilà euh, dañ leen wax ne leen xale bi mi ngi diggante fan ak fan. mi ngi diggante mbuur ak Joal. diggante mbuur ak Joal. Mhm. waa Mbour nañu seet waa Joal nañu seet mais dëkk yi ci diggante boobu nañ ko seet. parce que man gëmuma bi ñu demee man dafa seet ci jour bi jeudi bi. Mhm. ma àndaata xale bu jigéen boobu mu yóbbu ma ba ci waa ji waxuma sax waa ji téléphone ba ñu mhm. agsi waa ji xamul woon sax ne man maa ngi ci yoon. bi ñu ñëwee ba agsi mu wax ñu. lu mu wax hmm. dama koy laajaat. danga koy laajaat beneen sëriñ. beneen non dama koy laajaat li mu wax. mu duma ko répétel ba mu xamal ma fi oto bi gaare woon bi ñuy dugal xale bi. nombre de personnes yi ci nekkoon. le jour génnee ñu ko le lendemain lañ koy soog a génnee Yoff. di ko yóbbu côté Mbour à Joal. d'accord ñu jëlaat kooku. ayca allo rapidement mbokk allo. allo asalaamaaleykum. waaleykum asalaam. Ramatulaay Ndoom la Kaolack. Ramatulaay yow rek la ñuy déglu. waa vraiment affaire yi naqarlu nañ. dëgg la Ndoom. parce que ñun ay xale lañ amaguñ doom amaguñ jëkkër. Mm-hmm. mais bii situation yaay ji rek xam nañ ne métti. dëgg la. parce que kii ku ko xool rek di nga xam ne vraiment ñu dëgg la Ramatulaay. affaire yi na ko trop. merci beaucoup Ndoom ba dolli leen ñaan. dolli leen ñaan. ñoo ngi ñaan ci barke Maolana Cheikh yàlla na ko yàlla. wallahi wallahi ndeysaan. jërëjëf loolu lañ lay wax incha allah dina feeñ. incha allah dina feeñ. ci barke Maolana Cheikh Ibrahima Niass. jërëjëf ndeysaan Niass Koumba Abdallah ñu koy nuyu bu baax. ñu koy euh, ziar di leen ziar bu baax soxna soosu waaye itam di nuyu bu baax ki nga xamante ni mooy euh, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass di xalif général ku lu ñaseen xalif généraux yëpp ñu ngi leen ci o ndax lii ñoo ko seen i njaboot. ñoo ku mu mënti doon ndax lii dafa doy waar dafa yéeme donc euh, wax nañu leen yow bi la waa ji waxee même tour demaan nga ci kilifa kilifa goo xamante ni mun nañu wax mbàkke mbàkke la lum la wax. dafa ma wax màndarga yi ndaw si. Mhm. mais waxuma tur bi. waxula tur mais bi ma jógee sa kër bi ci guddi. waaw dama dem sama grande sœur woo ma. parce que tur bi. Mhm. ñi ko yëg ñii ma àndaloon sa kër lañ ko déggee. ndeysaan am na ci man deux jours. man ak ki ma àndaloon rek ñoo xam li ñu wax. ah preuve yi ñu wax yëpp mais bugguma ko woon wax mhm. avant que sama sœur bi di ma woo mhm. sama jabaru càmmiñ bi sama jabaru cousin bi mhm. sëram ñëw na moom tamit dem sedd parce que affaire bi dafa metti ñëpp ñu wax ko ba wax ko ñu yor xale bi couple bi la couple lu la couple bi góor bi français la jigéen bi mooy sénégalaise bi ñu ko waxee ñu ñëw wax ko ci saal bi fekk man maa ngi sama nekk ci kaw bi ñu ko waxee ñu woo ma ne ma sëram woo ma ne ma kaay sama yaay def na déli mm. ndax dañ ko woo ba ci biti wax ak moom mu dugg ci biir wax ma ne ko gis nga lii laa xamoon moo tax man waxuma la mm. ki ma àndaloon ne ma yow yaa wax maa ko déli ma ne ko non mm. waxuma ko dara de dégg la demoon seetlu non moom yaayu xale bi dama ko ragal bugguma koo nax mu du leen perturbé dëgg la keneen ko bokkul ci ñu famille moo dem yërëm ñu dem seetlu am kuy seet mu dem mu wax ko waxu ko tur mais daf ko wax couple bi daf ko ne maire bi bi mu ko jëlee daf ko jox benn couple daf ko jox couple boo xamante ni ku jigéen ki sénégalaise la mhm. ku góor ki mooy français mooy français bi ñu waxee ne loolu man xam naa loolu bi ñu leen ko waxee fekk boobu ñu wax la yow ne la xale bi mi ngi diggante Joal ak Mbour waaw nekk donc sali dox na ci diggante bi ak feneen ak feneen di ah. localu tubaab yi mi ngi ci couple boobu mhm. en même temps xale bi fi mu nekk waa ji wax na ma ba ne ma moo gën a luxe fi ma toog nii su ma juumulee F plus 2 la xale baa ngi toog nii duma la ko mën a wan nga di ko gis mais xale baa ngi nii toog mu ngi ci jàmm actuellement bi ma koy wan nee mi ngi nii toog di lekk di naan xiiful mal fa mu jugee fi ñu ko yor nii actuellement nii non non daf ma ko wax mm-hmm, parce nee na ma lii man mënuma ko gis mm. aw ma maxaama boobu mais fi xale bi nekk moo ko gënal fi mu jugee mais kooku est-ce que buñ ko toppee moom it du topp gis-gisam boobu ba ci lieu bi moom daf may wax tour par mm. mais ci kaw loolu nee na ma ñii nii may gis su waat ko duñu jullit wala suñ dee jullit duñu pratiquer mhm. ndax bu dul jullit sa tur day lëndëm mhm. ci kaw day lëndëm boobu moom junj na ma mhm. mais comme moom ba fi ma junj te leerul man duma ci abusé de trop man xam naa ne couple bii ñi ko yor duñuy musulman d'accord temps bi mi ngi jeex dañ ciy dellu si suba même cas bi moom la ñuy wax euh, réeru ki nga xamante ni mooy maam Cheikh Ibra Thian di xale boobu ñu ngi ci amoon ay tegtal di wax ne mi ngi Mbuur wala sali wala Joal zone yooyu léegi nag wax nañu leen lu leer couple bi ko yor kii tubaab la kii nit ku ñuul la mun na nekk yàlla rek moo xam mhm. euh, fa mu nekk luxe la ndax maire bi daf ko jël dem jaayi ko ñoo ñu am déet yàlla rek moo xam mhm. wala ndax doomam la ju mu yéene doom tax mu jaral ko mu gardaañu dem duggu kër jàmbur teg nit naqar pour fajal doomam jooju bànneexam indil ko bànneex yàlla rek a xam wala poñetu xaalis moo tax mu jël maam Cheikh Ibra Thiam mi yóbbu yàlla rek xam waaye yàlla mi xam lépp gis lépp te mën a nit ñu ngi koy ñaan ci barki laa ilaha illallah yàlla ñu yàlla niital kii nga xamante ni mooy maam Cheikh Ibra Thiam soxna si lan ngay jeexale ndax temps bi jeex na wala ma bàyyi kii mu tàggoo lan ngay tàggoo ñoo ñu ngi tàggu ñu ngi gërëm ñëpp mm. mais dañuy ñaan mm. ndax ñun ñaan moo ñu dese. dañuy ñaan bépp kilifa diine aada. xeebuñu kenn am nañu garaaw ñoo xamante ne buñ la waxee defal nangam bu buñ koy womat di ko indi duñ ko tey. ñooñu ñu ngi toog di ñu seetaan nañu wane seen bopp ñaan. Mm-hmm. di leen ñaan ngir yàlla ak jëmmi Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wa salaam. bépp nit boo xamante ne nii gëm nga Seydina Muhammad ñu ngi lay ñaan ak koo mënti doon ñu ngi lay ñaan ngir dimbali ñu niital ñu ñun sonn nañ deseetuñu dara. jeexal ngeen tàkk dërëm bu ñu desee dese mm-hmm. ñu dara ñu ngi leen di ñaan jërëjëf mm-hmm. Baye Abdoulaye yal na ko fi yàgg Baye. Mm-hmm. yàgg te wér. barki Seydina Mandione laay. barki maam Babacar. barki Sahel Bulkiram. barke maam Raan nañ ma niital sama doom ñu indil ma ko kilifa diine kilifa aada yi dimbali leen ma ngir yàlla ngeen indil ma sama doom Baye Abdoulaye Thiaw laay yal na ko fi yàlla bàyyi te wér. nañ ma niital sama doom man sama doom laa bëgg gis. nañ ma indil sama doom nañ ma indil sama doom moom laa bëgg gis nañ ma indil sama doom sama doom laa bëgg maam Cheikh Ibra Thiam nañ ma ko indil fii samay loxo nañ ma ko indil képp ku ci am dara rek na ma woo ci 77 534 91 nañ ma indil sama doom ku ko teg lii nekk nga ku ci mën a jaamu yàlla ngir lii mu nekkee mu jóg ci def ko te yàlla tax lii dafa metti nañ ñu dimbali ngir yàlla ak yonent bi waaye indi doomu jàmbur massa fi amaani laa jàngeen jëf massa massa